wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar amma baad fa haadihi kalimatun bi unwaan yoon la ñuy jaar nun ba mën a comprendre sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndaxte leenu mën koo jëfe ak gàllankoor yi nga xam ne ñooy dox suñ diggante ak loola ginnaaw bunt bi dafa aju nag ci wàllu gàllankoor yi wala sabab yi nga xam ne mooy baare nit ki sabab yooyu suñ ko xamee dindi ko day daal di leer nañ ñi kon yoon yan lañuy jaar ba dégg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk a dégg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jeng ci bunt boobu jàng ci bunt boobu ñaari mbir rekk moo koy waral benn bi mooy ak la yonente ba sallallahu alayhi wa sallam mooy jubluwaay bu ñaaw maanaam suu'ul fahmi ak suu'ul qasd lu bari nag ci jullit yi mën nga wax ne mucc nañ ñoom ci suu'ul qasd maanaam jubloo ñaawal waaye nit ki dana jubloo rafetal jubloo dégg lu baax ba jëfe ko waaye jàppul ca sabab yi ñuy jàpp ngir mën a dégg la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax tax déggiin wa ñaaw waaye nag ñaar yooyu leen lu ci ne dana am boo seetloo ka jéng daal ba jaarul ci sunna tey tuddoo boroom xam-xam ci biir cadre boobu ñaari mbir yooyu benn ko ci gaar benn dégg baa ñaaw wala jubluwaay ba moo ñaaw jubluwaay bu ñaaw nag ni muy gaare noonu bu lislaam léeg-léeg it nag mu gaar ab jullit ñu wax na jullit yépp mucc nañ ci dëgg la noonu bu lislaam ba moom la ko tax a jóg mooy xeex lislaam léeg-léeg nag ñuy dugg ñoom ci biir lislaam ci boppam di ko jàng ngir mën koo xeex waaye ki nekk ci biir sunna it léeg-léeg seytaane jekku ko ba jubluwaayam doon bu ñaaw jubluwaay bu ñaaw ca na muy amee mooy nit ki jëlul sunna def ko mu nekk imaamam jëlul sunna def ko imaam imaam da topp ci moom su dee nii la nga ne nii la su nee du nii nga ne du nii waaye léeg-léeg nit ko fétalal boppam fétal mooy di doxal boppam te jaaru royul ba tërye fi boppam ne xaaral ma ñëw seet lu ko mën a dëgëral ci sunna kooku jubluwaay bu ñaaw la kon daal mën nañoo wax ne mboolem kuréel yi réer kuréel yi génn sharia moo xam lépp la wala lenn ci bunti sharia lañ génn kuréel yi nga xam ne dañoo tàbbi ci biddaa mbooloo yi nga xam ne dañoo fëll génn ak topp jaar ci yoon woo xam ne bu dëng la man nga ne li leen gaar ba loolu dal leen li ca ëpp mooy déggiin wu ñaaw maanaam songu sunna defe ne dégg nga ko ndeke li nga dégg leneen la loolu moo ëpp ci lu leen gaam njuumte nag ci dégg texte boo xam ne texte sunna la dafa mën a rëy rawatina ci koo xam ne boroom xam-xam bu ñuy jële xam-xam la ndax su juumee day yóbbaale ñu bare bari juumaale leen jàngat nag lii tax nit ñi loolu di leen gaar jàpp nañ ne bunt la boo xam ne bu am solo la eh, kon lii di ñëw lenn la ci sabab yooyu wala mooy li ci ëpp solo sax ci sabab yoo xam ne dafay baare nit ki ba na a déggee sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko na déggee wala mu bañ koo dégg sax faf sabab bu njëkk ba ci sabab yooyu mooy li ñuy tuddee manhaju at tajzi wala at tajzia méthode boobu benn méthodologie la boo xam ne boo ko doon firi ci wolof te bëgg mu jege xel yi da wax ne mooy tànn lenn rek ci sunna yem ca loola bañ a xool leneen la ca des li ñuy wax tànn sa bu la neex loolu ni muy dalee nit ki ni mu koy gaare daanaka nag yu mel noonu ñoo muy gën a gaar mooy ñoo xam ne dañoo dugg ci biir xam-xam bi di ko jàng te jàngewuñ ko ci ay loxo yu leen ko jàngal bañ xam ni ñuy jànge xam-xam moo di jàng benn texte ci xadis tànn ca lenn di ko appliquer di ko jëfandikoo te généraliser woo xool ba xam texte boobu lan la joteeg yeneen texte yi ci des ndax am na beneen bu ñëw di ko firi ndax am na beneen bu ko leeral ndax am na sax beneen bu ko dindi moom boobu toog palaasam kon al qiraa al muy liir boo xam ne dangay ngay liir di tànnal sa bopp walla liir bu yàkkamti yam ci benn texte dal di koy jël moom dong kooku dana jur euh, metod boobu nga xam ne mooy manhaju tajzi kon sun na ngir nga mën koo jàng da ngay généraliser da ngay jàng da ngay góorgóorlu jàng bunt bi boo jëlee benn bunt jàng li ca ñëw lépp door a génn ak i àtteem moo tax al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah day wax ne alxadisu ida lam tajmac turuqahu lam tafhamhu walxadisu yufassiru baaduhu baada nee na xadis su fekkee ne dajale woo riwaaye yi ci ñëw yépp muy lépp lu aju ca xadis li fekk dajale ko mu nekk sa kanam doo ko mën a comprendre maanaam boo jëlee wenn laf wa yam ca doo ko xam mu ngi mel ni rekk doomu aadama su fekkoon ne gisoo nit ku mat nga jekki jékki rek jël ab loxo gis benn cërub doomu aadama nga de ah lii de mooy doomu aadama wala ñi won la tànk nga ne kon ni loolu mooy doomu aadama wala nga gis biir ba nga ne lii de mooy doomu aadama nga jël benn bu cër tudde ko doomu aadama yem ci cër booba nag kooku njuumte lay doon li feeg xooloo xool bu généralisé boole bopp baag tànk yaag lépp loo xam ne aju na ci jëmm joojee nga door a àtte ne doomu aadama jaa ngi nii boroom xam-xame xadiis noonu lañ eh, jubloo ne nit ki su jàngee xadiis te dajalewut la aju ca bunt ba du ko mën a xam maanaam kon mbir mi ajuwut na kon ci jàpp ab benn xadiis firi ko daal dina xam-xam bépp ngi nii kon laaj na lu mel noonu joxe ci ay misaal xadiisu nahyi an kitaabati alxadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ay jamono dafa tere woon ne bu leen bind xadis xadis boobu xadis bu wér la mu ngi ci téere yi euh, orientaliste yi biñ dikkee dañoo boole ñaari mbir yi ma doon wax yépp mooy soo ul fahm ak soo ul qasd seen jubluwaay baaxul waaye seenu déggit baaxul lan mooy seen jubluwaay mooy ñoom weddi sunna moo leen tax a jóg ñu ne ah sunna kët kenn bindu ko woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi dafa tere woon ku bind xadiis pourtant wax nañ dëgg de yonent bi tere woon na ko ñu ne kon nag kañ lañ bind xadiis ñu ne ci deuxième wala troisième siècle bi ci lañ ko tàmbalee bind ñi ne nag a ah, kon de loo xam ne nit ñi dañ leen doon woo rek ñi ñëw kenn ku nekk la nekk ci sam xel nga joxe ko ñu boole bind ñu ne kon kooka loola wóorul ne yonent bi moo ko wax su fekkee ne wóorul ne yonent bi moo ko wax kon sunna dara wóoru ci yaqin amu ci kon lan lay firi mooy ibtaalu sunna nañ bàyyi lépp loo xam ne aju na ci xadiis mënuñu cee jële diine loolu lépp ñu delloo ko ci fan ci benn déggiin boo xam ne dañ koo tànn jël ko mooy ban moo di ne yonent bi tere na ku bind xadis kon saxaaba yi binduñu ko woon dem nañ ba troisième wala deuxième siècle ñu door a commencé bind xadis la chaque ne loolu nit ki mënu koo saxal lu dul su fekkee daa tànn benn xadis dem bàyyi yeneen ya benn réer waral ko wala jublu jublu bu ñaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam wér na ne ci commencement l'islam nee na bu leen bind jële ci man lu dul alquran waaye ndax xadis boobu dong moo am ci bunt boobu déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na ba mu yàgg mu ne bind leen am na ku ñuy wax Abu Shah mu jóge ca Yaman bi mu déggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam xutba xutbaam bu yéeme ba xutbaam bu matale ba bi mu àggalee daf ne bindal leen ma ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne uktubu li abi shah bindal leen ko kon xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam na bind xadis abdullah ibn amr ibn al aas daana bind lu bare bari lu muy déggee ci yonent bi sallallahu alayhi ba am ñu ñëw di ko kalaameeg moom ñu ne ko kii mi ngi bind rekk di jële ci yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bindal waat naa ci yàlla ne gémmiñ gi lu dul dëgg du ci génne lu ma wax rek dëgg la kon bindal loolu moo tax saxaaba yi am nañ ay téere maanaam ay soxof yoo xam ne soxofu saxaaba la tudd képp kuy jàng xam-xamu xadis da nga ay téere yoo xam ne lii téere saxaaba yi la ñoo ca doon dajale seeni xadis ñoom ci seen bopp di ko bind abdullah ibn amr ibn al bokk na ci ñi ëppoon lu muy bind ci saxaaba yi ba dajale ab téereem boo xam ne sax daf koo tudde assaadiqa assaadiqa muy téere bu dëggu ba mooy bi nga xam ne lépp lu ci nekk ci gémmiñu yonente a sallallahu alayhi wa sallam la ko déggee moo tax ci bunt ba lam tàmbalee mooy hada ma samiahu abdullah ibn amr ibn al-aas min fii rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lii ma bind fii mooy li nga xam ne man abdullah ibn amr ibn al-aas maa ngi ko déggee ci gimiñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon téere booba yeyoo nañu tu ko as-saadiqa muy lu dëggule kon kooku mooy téere bi gën teel ci téere boo xam ne dañ koo bind ci lislaam tudde ko aw tur mu téereb abdullah ibn amr ibn al aas saxaaba bu mag a mag ci ci ci ci jeunes yi la bokkoon xale yu ndaw yu góor yi ci la bokkoon euh, moo bind téere boobu mu des nag lu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko ba noppi diglewaat ko ci commencement l'islam ci njëlbeen ga jullit yi ak saxaaba yi nga xam ne ñoo doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xàmmeeguñu woon alquran ak ak xadis xàmmeegu leer su fekkoon ne yonent bi lu mu wax dañ koy bind comme ni ñuy bindee alquran kon alquran ak xadis mën naa jaxasoo moo tax laa taktubu anni gayra alquran la wax bu leen bind ci ma bu leen bind jële ci man lu dul alquran biñ demee nag ab diir ba nga xam ne saxaaba yi jàng nañ alquran xàmmee waxiinu alquran ak loo xam ne mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne leen bind leen kon ki ñëw ci bunt boobu yam ci rek ne yonent bi daa tere ku bind kon sunna kenn bindu ko kooku day juum juumte lu réeréeri kooku benn exemple la yonent bi dëgg la tere woon na ko waaye diglewaat na ko saxaaba yi bind nañ am nañ téere bind nañ xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak dundam sax foofu kon jékkiwuñ ba premier siècle deuxième deuxième siècle ñu door a bind xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu sukk ci loolu sukkandiku ci loolu ngir weddi sunna te loolo yemul ci orientaliste yi waaye ñi leen di déggal ak di jàng seen njàng am na ci ay jullit yoo xam ne dem nañ ba loolu gaar leen ñi ne sunna daal wóorut parce que dañ koy yeex a bind kon kenn xamu ko kon sunna moom euh, l'islam dañ koy jëlee rek ci alquran waaye sunna mu ne su ko xam ñoo ñooñu weddi sunna ak weddi goo xam ne gu leer la àgg ci bind ci sax ay téere am na benn égyptien bu ñuy wax Mahmoud Abu Raya mu bind benn téere boo xam ne adwa ala sunna nabawiya ay lumière ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la tudde téere boobu waaye téere bi lépp lépp ba mu jeex li ca nekk mooy weddi sunna ca kaw na ko orientaliste yi gisee ak nañ ko bëggee waaye lépp ñi teg ko ci kaw benn base ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa tere woon ku bind sunna comme que kenn bind ko nag saxaaba yi mënuñu koo mokkal ba di ko bind ci deuxième wala troisième siècle waaye fekk mbir ma du noona dañoo xool benn texte jafandu ca bàyyi yeneen texte yi ca des kon loolu moo tax al imam ahmad ibn hanbal ne sunna soo dajalewut la aju ca bunt ba lépp doo ko mën a dégg kon ñaari mbir yooyu yëpp gaar nañ ñooña mooy soo ul fahm ak soo ul qasd dégg bu ñaaw lañ boole ak jubluwaay bu ñaaw résultat ba doon weddi sunna kon ñooña dégguñu sunna ku leen topp itam du dégg sunna fekk loolu moo ko waral boo jëlee beneen exemple ci loolu am na beneen misaal moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa am benn xadis boo xam ne daf cee wax ne antum aalamu bi amri dunyaakum lu aji ci seen mbirum àdduna yéen yéen a ko xam yéen a ma ko gën a xam sax wax fa lu aji ci seen àdduna yéen ma ko gën a xam lenn ci ñi nga xam ne dañoo layik rawatina ci arab yi nga xam ne laïcité tasaare ko mooy seen mbir dañoo sukkandiku ci xadis boobu ñu ne ah yonent bi sallallahu alayhi wa kat ginnaaw nee na yéen a gën a xam seen mbirum àdduna kon lu aju ci teg ay luwaa ak attewu ak yu mel noonu kooku mbirum àdduna la kon kooku ah euh, du mbirum diine su mbir ma demee noonu nag kon nit ki sañ sañ naa attewu leneen lu dul alxuraan loolu am na ñoo xam ne dañ ciy bind ay téere sukkandiku ci xadis boobu mu doon njuumte lu mag a mag a mag loo xam ne tàbbi nañ ci te la moo leen ci tàbbal loolu li ko andi ci ñàkk njuumte lu mag loolu ci sunna moo di ñàkk xam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ban situation la waxe loolu maanaam loolu ba tey benn méthodologie bi la mooy tànn lenn bàyyi ya ca des su fekkoon ne ñooñu doon jàngat loolu dañoo jàng lépp lu aju ci xadiis bi jàng yonente bi alayhi salaatu wasalaam lim wax na wax ja gën a mate dëgguñu ca dara bàyyi la ca des kon danañ xam lim wax mooy lan kon danañ xàmmee li nga xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam da koo wax ci xalaatam xalaatu boppam ndax kat yonente bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg mu daan wax dara ci xalaatam loola du bokk ak li nga xam ne da ko wax te fekk wax yu la wu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala la xew mooy waa Madina dañoo yor seeni tàndarma di bay di jëfandikoo li ñuy wax ak tabiir tabiir mooy lu ñuy wax góoral bu dee ci téere fiq yi boo ko dee jàng da ko ci fekk góoral ci tàndarma lañ koy def ñay bay tàndarma xam nañ ko tàndarma yi dafa am yu góor ak yu jigéen bu waxtu góoral jotee da ngay gis baykat yi tàndarma ya ñuy jël ay tóor tóor yu nekk ca tàndarma gu góor ga di ko def ca ji jigéen gi su ko defee loola talqiix lay lay doon loolu mooy tax tàndarma gu jigéen gi meññ mooy tax mu bari ay doom bi mu ñëwee fekk ñi di ko def yonente bi alayhi salaatu wasalaam màkka la jóge xamul mbay ak lu ca aju bu dee en tant que doomu aadama mu ne ñii li ñuy def lu mu doon ñu ne ko ah ñoom de tóor tóori tàndarma yu góor la ñuy jël di ko def ci tàndarma yu jigéen ngir bëgg mu gën a meññ mu ne ah buñ ko deful woon it day du tee mu meññ ah ñooñu ñu wax leen ko ñu ne ah yéen kat li ngeen di def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ngeen ko deful woon it du tee mu meññ ñooñu bàyyi lañ doon def waxtu tàndarma ñor jot seeni tàndarma ñorut amuli doom ñu ñëw ci moom ne ko yow kat yaa ne woon nan bàyyi loola bàyyi nan ko suñuy tàndar ma amuti doom mu ne leen lu aju ci seen mbirum àdduna yéen a ma ko gën a xam kon wax ji daa am fu mu jëm ba yemul foofu li matale xadis ba dafa ne in kaana yanfauhum dalika falyasnauhu su fekkee seet nañ ko ba gis ne lu leen amal njariñ la kon nañ koy jëfandikoo fa inni innama zanantu zannan man kat damaa jortoon rek fala tuaxiduuni bi zann bu leen ma jàppe mukk njort walakin ida xaddastukum an <coughs> illahi cheyan fa xudu bihi su ma leen waxee dara loo xam ne dama jóge ci saa boroom jël leen bu leen am lu ngeen di deng-deng fa inni lan akdiba ala allah man du ma waxal yàlla mukk lu amut kon xadis boobu mi ngi ci saxiixu muslim an-Nawawi wutal bunt boo xam ne bunt bu ñor la mu ne baabu wujubi imtisaali maa qaalahu shar'an baabu wuju wujubi imtisaali maa qaalahu shar'an mu ne bunt bii mooy buntub lépp loo xam ne dafa jëm ci war gi nga xam ne war na ko ñu topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne da koo wax fekk sharia la ci jublu fekk sharia la ci jublu bokkut loo xam ne da koo wax ci njort ni ko xadis boobu waxee beneen xad beneen riwaaya bi ci même xadis bi daf ne innama ana basharun man kat mbindeef laa ida amartukum bi cheyin min diinikum fa xudu bihi su ma leen digalee lu aju ci seen diine jël leen wa ida amartukum bi cheyin min rayin su ma leen digalee loo xam ne sama xalaatu bopp la fa innama ana bashar su boobaa man bindeef laa xadis boobu ba tey mi ngi ci saxiix muslim kon xadis bi ay riwaayaat lu bari la am moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg daana ànd ak saxaaba yi cib guerre wala dara ne def leen nàngam kenn jóg laaj ko ne ko ndax wax yu la wujjeeku fi suñ borom wala xalaat la bu ne ko ah xalaat la de mu ne ko kon de man sama xalaat mooy nàngam ak nàngam ak nàngam léeg-léeg mu bàyyi xalaatam jël xalaatu keneen def na ko fa badar def na ko ca ba muy diisoog jullit ya ci ci oxut dajeeg noonu wala dañoo war a toog biir Madina ba noonu fekk leen fa kon loolu xàmmee ko ci biir sunna lu am importance la waaye su fekkoon ni ñi doon jàng xadis bii naan antum aalamu bi amri duniyaakum yéen a gën a xam seen mbirum àdduna suñ jëloon xadis bi jàngat ko lépp xam li ko tax a jóg kon duñ tànn loolu jàpp ne war naa mën a dem ba àgg ci biir tashriya muy la doom aadama ja di sukkandiku ci wàllu luwaa muy doxal ak dundam <coughs> ndax loolu partie la boo xam ne ci biir sharia la bokk li nekk ci alxuraan ci loo xam ne day jàngal nit ñi lu aju ci liy defar seenu dund daanaka boo ko jëloon ëpp nag yenn wàllu alquran kon alquran dafa ñëw ngir ngir defar seenu dunduk àdduna ak seen dunduk alaxira waaye nag yenn détails yu sew sewaan ya nag ca nu ñuy bayee ndax lii dañ koy góoral ak duñ koy góoral kooku mbirum àdduna kese la nag moo xam ne moom yàlla nag buy wàccee wax yi dana ko wàccee ci lu gën a loolu loolu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne leen loolu seen mbirum àdduna la kon li ñu tudde al qiraa al intiqaiya manhaju tajzi muy tànn sa la neex ca xadis ba nga jël lenn la bàyyi ca la ca def kooku day yóbbe nit ki musiba mu mag a mag a mag mooy mu defee ne comprendre na sunna te comprendre lul dara beneen misaal ba tey ci bunt boobu bala ñoo toxu ci beneen sabab xadisu Aïcha radiallahu taala anha xadis boo xam ne mu ngi ci Buxaari ak Muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax Aysa nee na fii maradihi alladi maata fiihi nee na feebaram bi nga xam ne moom alayhi salaatu wasalaam ci la génne àdduna daf ne laana allahu alyahuda wannasaara ittaxadu qubura anbiyaihim masajid yàlla rëbb na yahuud yi ak nasraan yi lu tax mu ne dañoo jël bàmmeeli seen yonent ya def ko mu nekk ay jàkka dañoo jël bàmmeeli seen yonent ya def ko mu nekk jàkka sa mu teg ci mu ne bu dul woon loola kon danañ fésal xabru yonent bi sallallahu alayhi waaye dañoo ragal ñu def ko jàkka moo tax fésaluñ ko wante waxuñ ko yëkkatiwuñ ko defu ko nenn xadis boobu di wax ne yàlla rëbb na yahud yi ak nasaraan yi ndax dañoo jël seen xabru yi yonent ya def ko muy ay jàkka lenn ci nit ñi nga xam ne lenn ci nit ñi nga xam ne dañoo am fitnay xabru ndax doomu aadama yi nag am na ci ñoo xam ne dañoo am fitna ci wàllu xabru mooy jàpp nañ ne suñuy ñaan ngir ñu nangu seen ñaan faaw ñu dem ci xabru jàpp nañ ne xabru ginnaaw fas nañ ne nit ku baax a fi tëdd loo ca laal lu mën a doon rek lu lay jëmale kanam la weñ ga nga xam ne ministre métallique baa ko defar sax boo ñëwee raay def ci sab dënn wala ci sab jë kon loolu fitnay xabru la ñi nga xam ne dañoo am fitnay xabru te bëgguñoo gis lenn luy tee tabax ay xabru mën a am ànd ak ne yonente bi sallallahu alayhi da koo tere tere gu leer nañ bëgguñoo gis lenn lu koy tere dañ ne xadis bi wérut donte mu ngi ci buxaari ak muslim lu tax wérut ñu ne boo ko xoolee maanaam yi ci boppam dafa yàqu lan moo ci yàqu mu ne moom mi ngi wax ne yàlla rëbb na yahuud yi ak nasaraan yi ndax seen xabru yonent yi dañ ko def ay jàkka ñu ne ah waaw kon loolu nu mu mën a amee nasaraan yi kuy seenub yonent ñu ne ah isa alayhi salaam ñu ne ndax dafa amub xabru isa amutub xabru ñu ne kon xadis bi wérul kon bàyyi leen nu nu tabax suñuy jàkka ci suñuy xabru ndax xadis bi wérul waaye looloo tam li ko indi mooy li ma doon wax léegi mooy tànn lenn bàyyi def ca des yépp xadis bi daa ñëw ci ay riwaaye yu bari riwaaye boobu benn la ci mi ngi ci Buxaari ak Muslim nga xam ne dafa tudd yahuud yi tudd nasaraan yi waaye beneen riwaaye bi nekk ci Buxaari ci boppam nga xam ne bu sus rëkk ca booba daf ne rek laana allahu alyahuda ittaxadu qubura anbiyaihim masajid yàlla rëbb na yahuud yi ndax dañoo def seen xabru yonent ay jàkk boobu xadis kenn tudd ca nasraan ya ci beneen riwaaye ci xadisu jundub moo gën a leeral mbir ma nag kon noo ngi ak xadis bu nekk ci buxaari ak muslim tudd yahud tudd nasraan yi am nañ beneen xadis boo xam ne yahud yi kese la tudd noo am beneen xadisu ñetteel boo xam ne moo leeral bunt bi nag xadis boobu lan la wax daf ne yattaxiduuna qubura anbiyaihim wa saalihihim masajid ñooñu kat dañuy def seen xabruy yonent ya ak nit ñu baax ña ñu def ko jàkka kon boobu leeral na leeral na ne lam jublu ca yahuud ya ak nasaraan ya mooy yahuud ya jàkka ya lañ jël def koy xabru nasaraan yi jël nit ñu baax ña waxul ay yonent ñële yahuud ya yonent ya lañ ko def ñii nit ñu baax ñi lañ ko def kon xadis boobu moo ko leeral nasaraan yi dëgg la seenub yonent amul amul xabru ndax faatuwut muy isa alayhi salaam borom bi tabaraka wa taala da ko yëkkati mu nga ca kaw waaye nag am nañ nit ñu baax ñu faatu te loolu réalité la boo xam ne boo ko xoolee gis ko église boo dem bu ne ñaare da nga ci gis ay turi nit ak ay yëf yu baax mel noonu yoo xam ne ñoom lañ cay màggal kon seen nit ñu baax la jublu bu dee nasaraan yi yahood yi seeni yonent la jublu kon xadis boobu boo boolewut yem ci bu jëkk ba rek man la la dal la dal ñooñe mën na laa dal mooy jàpp ne xadis bi mënta wér ndax nasaraan yi seenum yonent amul xabru waaye xadis bi jubluwut loolu lam jublu moo di yahuud ya seeni lañ def seen place ay xabru lañ def seen place ay jàkka waaye bu dee nasaraan yi seen place yi nit ñu baax muy xabru yi seen nit ñu baax moom lañ def ay jàkka loolu baawaan na ba ci jullit yi mu defaat beneen tomb boo xam ne faaw ñu bàyyi ko xel moo di même même suñ jàppoon ne xadis bu njëkk ba noonu la mu di yahuud yi ak nasaraan yi dañoo jël xabru yonente yi def ko ay jàkka même loolu maanaam mi mën naa wér naka lay wére moo di nasaraan yi ci boppit seen bopp dañ doon màggal yonenti bani israil yi jiitu ya yonenti banu israil yi jiitu nasaraan yi ak yahuud yi ñoom ñëpp ñoo leen ànd leen màggal kon ñooñu mën nañoo jël seen xabru yonent ba tey def ko ay jàkk kooku daal kon lay lay xulaasa lay gàttal mbir ma di ko résumé moo di bunt booy jàng ci sunna bu ne jàngal bunt bépp ba àggal door a génn soo ko deful da nga coppati dara yóbbu ko ne loola mooy diine ji bàyyi fa loo xam ne ndekete mënu caa ñàkk kon kooku ñu bàyyi ko xel kon sabab bu njëkk bi kon mooy méthode boo xam ne bu baaxut la ci tànn lenn bàyyi yee ca des ñaareel bi mu ñaareelu sabab bi moo di ihmaalu alsiyaaq ihmaalu siyaaq wa asbaabi wurudi alxadis almuallila xadis benn bu nekk dafa am ci biir cadre bu muy waxe xadis bu ñëw bu ne dafa am ci biir benn cadre bu muy waxe kaatar boobu bokk na ci lay dimbali pour nga xam xadis bi lu ko tax a jóg ak ci lu muy wax nga xam lan moo taxoon yonent bi wax loolu ndax dafa amoon sabab wala lan moo tax mu wax lii su fekkee nag yow sa itte mooy ñëw xool texte bi kese noonu ci kaw rek jël ko yóbbu say atteeg say fatawa yépp nga teg ko ci kaw texte boobu danga nga ci dégg sunna faw nga xool biir jaww ji ji wër xadis bi ak la ca aju ak lu taxoon ñu wax ko <coughs> soo deful noonu doo mën a comprendre xadis bi faaw it nga bàyyi xel ñi taxoon ñiy wax ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nit ki muy waxal dafa amoon solo lool ci ay waxinam léeg-léeg benn laaj danañ ko ko laaj mu tontu ci lu bari ci ay laaj fekk ki muy waxal moo tax nit day ñëw ne ko lan moo gën ci xeeti jaamu yàlla yi mu ne ko bari looy julli keneen ñëw laaj ko mu ne ko topp sa ñaari waajur keneen ñëw laaj ko mu ne ko jihaad fi sabilillah te même benn question bi la fekk ki koy laaj situation ak la muy dund ci boppam moo tax mu tontu ko tontu loolu kon xadis bi kenn du ko dog jële ko ci ña taxoon ñiy wax soo ko defee da am lënt yu mag a mag ci biir sunna <coughs> yoo xam ne doo ko mën a lijjanti ba wattu <coughs> moo tax al imaam ibnu Qayyim rahmatullah day wax ne wa man afsa naasa bi mujarradi lmanquul képp koo xam ne ubbee na nit ñi ci loo xam ne rek dafa ñëw tuxal ko wa man afta nnaasa bi mujarradi lmanquul ala ixtilaafi urfihim wa awaaidihim wa azminatihim wa amkinatihim wa axwaalihim wa qaraa'ini axwaalihim faqad dalla wa adal koo xam ne dangaa ubbee nit ñi ubbee yoo xam ne nee na bàyyiwoo ca xel ñoom ñooñu seeni aada ak yi ñuy dund ak seeni jamono yañ tollool nee na kooku dana réer dana réeral keneen itam kon faw war ngaa xam nit ñi ak seeni pexe ak la ñuy dund loolu la ñuy wax fiqhul waaqe fiqhul waaqe mooy xam doomu aadama yi ak yi ñuy dund léeg-léeg nit ki laaj dab laaj rek da xam kooku lim bëgg ku ko ko tontu lim bëgg ku ko ko tontu loolu xam nit ñi mooy tax nga mën nee na kooku wa kaanat jinaayatuhu ala diini azama min jinaayati man tababa annaasa kullahum ala ixtilaafi bilaadihim wa awaaidihim wa azminatihim wa tabaaicihim bima fi kitaabin min kutubi tibb ala abdaanihim nee na kooku tooñ na nit ñi ci seen wàllu diine tooñaange bu mel ne benn docteur boo xam ne daa ñëw di faj am benn médicament boo xam ne rek ku ñëw ku nekk moom la lay jox maanaam jii mu ta xàmmee kii feebar bu ko dal ak ndax kii am na allergie ci comprimé bi wala nangama ko dal wala leneen ko dal wala mag la wala ndaw la xoolu ci âge xoolu ci leneen xoolu sax ndax am na yeneen i feebar yu ko dal waaye rek moom doomam boobu ku ñëw rek mu jox la nee na kooka na muy tooñe nit ñi ci seen wér-gu-yaram kii ni muy tooñe nit ñi ci seen diine mu ngi ëpp kon kooku lu mat a bàyyi xel la kon boobu sabab it danañ ci joxe ay misaal ba ci jëkk moo di yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ana bariun min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri almushrikina laa tana laa taraa naaruhuma nee na set naa wecc ji bépp jullit boo xam ne dafa dem dëkk ca dëkk yéefar ya kooku xadis la boo xam ne yonente bi moo ko wax muy xadis bu wér léegi nag lenn ci boroom xam-xam yi sukkandiku nañ ci xadis boobu ngir xaraamal tukki ci réew yi nga xam ne mooy réew yi réew yi dul réew yi jullit lu bari ci ñiy ubbee ci wàllu lislaam danañ leen laaj ñu ne loolu daganut lu tax daganut ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na set naa wecc ci bépp jullit boo xam ne dafa dem dëkk ci biir ay ay yéefar maanaam ñu dul jullit ànd ak ne noo ngi ci jamono joo xam ne nit ñi moom loolu ñu ngi koy def jullit yi moom ñu ngi koy def ndax aajo woon nañ di fa jàngi ñii aajo woon nañ di fa faju ñii aajo woon nañ di fa liggéeyi ñii aajo woon nañ sax am fa ay ambassade dem di fa liggéeyi ñii aajo woon nañ sax di fa daawa dem fa di woote ci lislaam su fekkee dañoo ubbee ne benn jullit bu mu dem foofa kon kooku dey li muy firi mooy foofa bu fa kenn benn jullit du dagan mu dem fa xalaat boobu nag bu tasaaroo la ci biir Europe ak ci réewi tubaab yi indil nañu bare bari ay fitna ba tax na ña koy def ña fa nekk sax même ñu ci bari seen xel dalut ci loolu boo leen laajee lañ la wax ne moo nu fi bàyyi dañuy wax ne daruura la maanaam nécessité daal moo dem ba yóbbeenu nu nekk fi waaye xam na ne lii nu nekk daganu loolu la ñuy wax sukkandiku ci xadis boobu fekk loola li ko waral dafa am benn erreur bu ci am mooy këf xadis bi noonu rek loolu ibnu qayim di wax ne aftar naasa bil manqul tuxal dara noonu rek jox ko maanaam yi nga xam ne moom la yor te xooloo asiyaaqul aam ak sababul wuruud muy xadis bi lan moo ko taxoon a jóg xadis bi li ko taxoon a jóg bu wér mooy xadisu euh, jarir ibnu abdillah daf ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baasa sariyatan ila xasam yonent bi dafa mas a yónni benn armée ci benn giiru arab bu ñuy wax xasam waaye fekk ñooñu ay yéefar lañu woon waaye amoon na ay benn benn jullit yu nekk ci seen biir amoon na benn benn jullit yu nekk ci seen biir nee na faxtasama naasun minhum bis sujud nee na jullit yooyu ñu ne ah waaw armée yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee attaqué yéefar yi mbaa duñ la ci reyaale ñu ne ah ni ñuy def mooy suñ agsee nun nañ sujjóot ndax ñu xam ne ay jullit lañ bi armée ba agsee gis ñooñu sujjóot ñu ne ah, ñii ay yéefar lañ yoo xam ne dañuy defi tappale bañ ku leen rey ñu rey ñi leen reyaale ci jullit yi fa balaga dalika annabiya sallallahu alayhi wa sallam xabaar boobu agsi ci yonent bi biñ demee ba xam ne ñooñe sujootoon ay jullit lañ woon nee na fa amara lahum bi nisfi al aqli nee na mu ne ñooña seen famille nañ leen seet jox leen genn wàllu déye maanaam ku rey nit la nga war a joxe nañ leen jox genn wàllu ci mu teg ca ne ana bariun min kulli muslimin ila axiri alxadis mu ne man set naa wecc kon ci bépp jullit boo xam ne day ñëw dëkk ci biir ay yéefar kon yéefar yan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax kenn ku ne xam na ci siira ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw boo xamee ne lislaam taxaw na yéefar yi nekk ak yonent bi ci situation boo xam ne situation guerre la xaalatu xarb booba lañ doon def mooy jullit biñ jekku rey lu dul su bokkee ci seen famille jaadu woon na kon jamono yooyu jullit ya gàddaay fekk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu war la woon ci ñoom waajib la woon ci jullit bu nekk nga gàddaay fekk si yonente bi gàddaay boobu am na ñaari njariñ benn bi mooy ñëw dëgëral si lislaam ci këram beneen bi mooy nga bañ a jaawaloog yéefar ya ndax ñu xam ne bokku leen léegi nag ñooñu dem dëkk ci biir foo xam ne ci guerre lañ nekk ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo indi jaawaloo ga bañ a rey leen loolu moo indi taralu tere ga kon su fekkee ne situation am na ci diggante am réew moo xam ne réewum jullit la ak beneen réew boo xam ne du réewu jullit waaye ab guerre doxul seen diggante jàmm rek a fa dox ubbi nañ fa lépp ambassade ubbi fi ambassade xeexuñu defuñu dara ah kooko defe naa ne xadis boobu taxul ñuy wax soo ko jëlee nag généralité ko ci lépp kon da nga indil jullit yi aw diisaay kon daarul xarb moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax mooy ñoo xam ne situation de guerre lañ lañ nekk seen diggante yonente amma bu fekkee ne kër la goo xam ne du kërug lislaam foofa li wér mooy jullit bi mën na faa nekk waaye ci ñaari sart ñaari sart sart bu jëkk bi mooy wujudu xaajatin li dalik mooy aajowoo ko moo xam daawaa ko fa yóbbu wala ambassade ko fa yóbbu wala ëb wuti lum dundee ko fa yóbbu na fekk ne moom dafa aajoo dem foofa moo tax mu nekk ñaareel ba moo di al amnu min fasaadi diinihi mu am dalu xel ne moom diineem du yàqoo foofa ñaari sàrt yooyu ñooy daje aajowoo na faa dem wóor na ko nit moom ci wàllu pas-pasam ak diineem xam na ne dem fa du tax mu soppiku du tax mu yàqu kon kooka mën na faa dem léeg-léeg sax dem fa day jaadu ci moom ndax su loola amut kon kan mooy jottali lislaam suñ ne benn jullit daganul mu dem ci réewum benn yéefar di toog kon kañ la jullit yi toxal lislaam jéeg jikko yu rafet yeeg mbaax nga ca nekk yut ko ñeneen su ñooñu xooloon loolu xool saxaaba yi li ñu doon dund ñoom ci seen bopp li ëpp ci ñoom faatoowuñ màddina li ëpp ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faatuwuñ madina xutba bi yonente bi alayhi salatu wasalaam doon xutba ci arafa at mi nga xam ne mooy xajjatul wadaa bi muy tàggoo xeet mi dañoo wax ne téeméeri junni doomu aadama ñoo fa teew ñoo fekk xutba boobu ci ay jullit ñooñu ñi ci ëpp dañoo tasaaroo ci àdduna di jot li lislaam su fekkoon ne dañoo déggoon xadis boobu ne du daggan ci ab jullit mu toog ci réew moo xam ne du réewum jullit kon lislaam du tasaaroo tey ba agsi fii mu agsi kon faaw ñu bàyyi xel ne xadis ba la muy wax cadre ba muy waxee suñ ko ko génnee yóbbu ko ci beneen cadre wala ñu généraliser ko ci lépp danañ andil suñ bopp coono bu méttee métti ci biir ci biir diine ji beneen misaal bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xadis bu wér almuslimuuna shurakaau fi salaas fi lmaai wal kala'i wan naar yonente bi alayhi salaatu wasalaam li muy wax foofu mooy jullit yi nañ bokk yett yii maanaam bu ko kenn jaay bi ci jëkk mooy ndox bi ci tegu mooy xonti jur gi mbopp mi nekk ca àll bi ñu koy jël di ci xonti jur gi ñetteel bi mooy sawara sawara jullit yi nañ bokk ñett yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam kañ la wax loolu ak ci ban situation la ko waxe alayhi salaatu salaam daf koo wax bu doon ci suñ jamono tey da nga naan benn décret la boo xam ne gouvernement bi daf koo génne ci gannaaw boo xamee ne dañoo dem ba xool ba gis ne situation dundu jullit yi àgg na fii nag ñu mën leen yombalal mbir yi ñu yombale leen ko noonu suñ ko doon joxe tey dañ naan réew mu développé woon di dem di dem di dem ba mu yàgg ñu ne ah léegi may nañ leen bu leen fayati électricité may nañ leen ndox mi jóge SDE yu mel noonu bu leen yàq ndox nag waaye amatul amatuli facture loolu am réew mën naa dem ba àgg ci wala déet ndax am na yoo xam ne dem nañ ba yombale ko lool ci suñ jamono ji nga xam daanaka dañ koy maye daanaka mën nga wax ne dañ koy maye ci misaal Arabie saoudite xaw ma léegi waaye man ba ma fay nekk facture ndox bi génn benn yoon li génn par at benn li génn par at bu dikkee maanaam yow boo xoolee soo ko doon misaal tey man nga ne daal mën naa àgg soixante mille bu seeree ci at téléphone demoon ba àgg ci booy téléphone ci biir dëkk bi euh, zéro maanaam amul amul facture ci jamono yooyu diggante ay quatre-vingt-dix jëm kaw amul woon téléphone kon li ma la bëgg a wax rek mooy état mën naa dem ba mu yàgg mu gis ne mbir mi kat laaj na nangam kon mën nañu yombal nangam yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon bi itibaarihi mutawalliyan mansib al imaama jiite gim jiite woon jullit yi la dox ba gis ne xeet wi aajo woon nañ ku leen yombalal yenn yi léegi ndax mbir mi laaj na ko mu ne leen bu leen jaayanteeti sawara bu leen jaayanteeti ndox jur gi seenu pont bu leen ko jaayanteeti bokk leen ko ñi di ko bokk mu doon ak yombal ci seen biir boo xam ne bu am solo la woon waaye ki ñëw xool xadis boobu képp te nag am na ñu ko def itam jàpp ne benn individu bu nekk am na droit ci jël xadis boobu jëfe ko génne na benn fatwa ci ne nit ki sañ naa def ay pexe su ma nee def ay pexe ba du fay facture courant pexe yooyu dagan na ndax xadis bii su ma nee def ay pexe ba du fay facture ndox loolu dagan na ndax xadis bi kooku njuumte lu mag a mag a mag la xadis bi waxewul foofa kon xadis bi bi nga ko génnee ci cadre bu muy waxe yóbbu ko ci beneen jàpp ne yi moo koy jël di ko jëfandikoo te fekk njiit a njiit koy def maanaam état moo koy def génne nga ko ci siyaax boobu yóbbu ko ci beneen siyaax mu joxe meneen maanaam moo xam ne fitna moo ciy juddoo ku ko gis defe ne lislaam loolu la wax fekk waxut loolu kon jimmi dégg sunna ci boppam lu aji bàyyi xel la ci mbir yi te bunt nag a ngi bu am solo moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa am yoo xam ne da ko wax pour tashriya mooy na ko xeet wépp jël kenn ku nekk jëlal loolu jëfe ko am yoo xam ne daf koo wax ci kaw nekk gim nekk jiite état bi di génne ay décret yoo xam ne danaan lii nañ ko def kooku day xool la gën a baax ca askan wa ci jamono jooja loolu lay génne joxe ko loolu mënuñoo wax ne dañ koy généraliser ci bépp dëkk bu mu mën a doon nit ñi dañuy dund ba àgg fa suñ dundoon ba faatu te àgguñu fa it xam ne àgguñu lu mat a bàyyi xel xadis bi léeg-léeg day am sabab comme ni nga xamee ne aayab alquran day am sababu nuzul xadis day am sababul wuruut sababul wuruut ñaari façon la maanaam sabab si tax xadis bi yonent bi wax ko lu tax mu wax xadis bi loolu ñaari ñaari façon la am benn bi mooy la doon sababu su wax ja loolu ci boppam mooy illab xukmu bi muy atte ba ca tegu atte ba ca dikk masala ba ca ñëw ci wàllu fiq sabab sa ci boppam mooy illa moo tax moo tax atte bi am su ma ci joxee misaal dana gën a leer beneen bi ci des sabab si ci boppam nekkul illatul xukm maanaam taxul atte boobu génn danaa ci joxe misaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi muy waxee ne laysa min al birri fi safar woor te fekk yaa ngi nekk ci tukki bokkul ci topp yàlla woor te fekk da ngaa nekk ci tukki bokkul ci topp yàlla xadis boobu am na benn benn nit ñi ci sukkandiku ñoo xam ne dañoo xaraamal kuy tukki woor xaraamal ñun xam nañ benn boroom xam-xam boo xam ne loolu la daan ubbee cheikh Mouhamad Taqiyuddin al-Hilaali rahimahullah cheikh Aboubacar Jaza al-Jazaa'iri nettali na ci làmmiñam may dégg mu ne dem na fa nuyoog moom ci këram mu ne ko kooku Aboubacar al-Jazaa'iri mu ne ko waaw mu ne ko duma la ubbil ndax dégg naa ne dangay ngay wax ne kuy tukki sañ naa woor dégg naa da ngay wax ne kuy tukki sañ naa woor kon duma la ubbil kon sëriñ boobu ak xam-xamam bu bari lépp daf doon ubbee ubbee googu mooy kuy tukki fu mu ko daan sukkandiku lay sa meneen birri bokkul ci topp yàlla ngay woor fekk yaa ngi tukki waaye loolu fekk xadis bi dafa am sababul wuruud dafa amoon lu tax yonent bi wax ko te la taxoon mu wax ko loola mooy illab atte boobu moo tax yonent bi atte atte bii lan la xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko jaabir ibn abdullahi nettalee ne yonente bi dafa nekkoon cib tukki fa raa zihaaman wa rajulan qad dullila alayhi nee na mu gis nit ñi raj loo yékkati lu mel ne ab sér tiimale ko kenn nit ñii di wupp ñii di wis ndox mu ne lii lu mu doon ñu ne ko ah kii de daa nekk ci ab tukki woor kii de dafa nekkoon cib tukki ba noppi woor looloo tax mu néew doole ni ba bay bëgg a faatu yonent bi ne laysa min al birri as-sawmu fi safar kon xam nañ situation bi tax mu wax ko maanaam ki nga xam ne dafa woor di tukki day tukki te àttanul koor bu mu woor kon kooku mooy àtt bi waaye su fekkee day tukki àttan ko nag su boobaa xadis bi dikkut ndax sax na ci beneen xadis bu wér nekk ci Buxaari ak Muslim saxaaba yi bay nettali mu ne daanan tukki ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñenn ñi woor ñi ci des dog ka woor du wax ki dog dara ki dog itam du wax ka woor dara ñu àndandoo di dem kon day wane ne loolu loolu lu dagan la foofu sabab soosu moo tax yonente bi wax loolu illa bi tax mu joxe àtte boobu it mooy benn situation mu benn xaala muy nit ku néew doole ba munta woor boole ko ak tukki kooka moo tax muy wax te teg bëtam ci loolu moo tax loolu mooy illa kon sababul wuróot bi mooy illatul xukum daje foofu mooy sabab tax mu wax hadis bi mooy sabab si tax mu génne àtte boobu sabab si tax mu wax hadis mooy lan mooy gis na nit koo xam ne daa woor néew kàttan ba nar a loolu mu gis moo tax mu ne daganul kon kuy tukki muy woor fekk lam ci jublu kon ku woor te fekk nii lay mel su ku tukki te fekk su wooree nii lay mel léeg-léeg xadis bi dana am lu tax yonent bi wax ko waaye loola du tax loola am atte booba maanaam atte ba jógewut ca loola dong maanaam bu ñëwee day gën a yaatu danañ si joxe misaal muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn waaye dafa ñëw laaj ko ne ko noonu day ay mool ay mool lañ maanaam ay ci jën lañ dañuy tukki ci géej gi tukki yoo xam ne yu yàgg la fekk liñ yor ci ndox tuuti la suñ ko jàppee dañuy mar duutu nu am lu naan ndax mën nañoo jàpp ci ndoxu géej yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ah géej kay ndoxam lu laab la mën ngeen cee jàpp mën ngeen cee jàpp comme ni nga xamee ne jën ya dee ci biir géej gi dagan na ngeen lekk ko dagan na itam ngeen jàpp ci ndoxu géej foofu sabab si tax yonente bi wax xadis mooy ab question nit ki da koo laaj laaj boo xam ne daf koo tontu waaye nag foofu li ko wutaleeg fu jëkk fa nga xam ne sababul wurud bi mooy illatul xukum sabab bi tax yonent wax ko moo tax mu génne àtte bi bokkul ak lii lii sabab boobu rek taxul mu génne àtte boobu loolu moo tax àtte boobu yemul ci ñooñu rek ndoxum géej boo ko jëloon indi ko ci sa kër tukkiwoo nekkoo ci biir géej it mën nga caa jàpp kon euh, li dox seen diggante mooy li wuutale différence bi dox diggante euh, xadis bi nga xam ne dafa am sabab te fekk sabab soosi ci boppam moo tax ñu génne àtte bi ak xadis bi nga xam ne dafa am sabab te sabab soosu taxul ñu génne àtte bi boo leen xoolee ñoom ñaar bu mujj bii moom day généraliser àtte ba bu ñëwee ñépp koy bokk bale ca des nag àtte ba day yem foofa rek ca la ko taxoon a jóg loolu nag suñ ko xamewul dañuy juum ci boobu bunt diggante bu sew a sew la boo xam ne ci wàll jàng xam-xam dafa jaaruloo ñu jox ko itte boo xam ne bu mag la ñetteelu sabab yi <clears throat> moo di azlu alxadis an maqasid alsharia alkulliya wa xabsihi ala alqadaya allafziya aljusiya sharia atte bu muy joxe bu ne am na lu mu ci jublu atte bu sharia di joxe bu ne am na lu mu ci jublu kon sub xadis ñëwee buñ koy jëfee nan xool jubluwaayu sharia ci xadis boobu maqaasidu sharia nag moo gën a xóot li ñuy wax al xikma min al xukm ndax benn atte bu nekk dafa am xukum waaye sharia ci boppam dafa am ay maqaasidu ulya muy ay jubluwaay yu kawe yoo xam ne mbir ma nit ka bu ko xamul rek mën naa jubum ci biir wàllu sharia ndax léeg-léeg da ngay koo xam ne li koy nax mooy li ñu tuddee qadiyatul mustalax maanaam terminologie benn baat boo xam ne lii lay firi fi yow nga jël ko firee ko baati sharia ya jox ko àtte boobu rek mu dem lay misaal ci loola danaa ci joxe ñaari misaal benn bi mooy photographe yi ñuy jëfandikoo tey di photo jël appareil photographe photo doomu aadama am na boroom xam-xam yoo xam ne dañ koo araamal mutlaqan maanaam dafa xaraam daganut luy tegtal bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ay xadis benn bi ne inna ashadda annaasi azaban inda allahi yowma alqiyama almusawiruun ñi gën a tar mbugal fa sunu borom tabaraka wa taala ëllëg mooy almusawiruun nataalkat yi nataalkat yi waaw ndax suura suura ci boppam muy nataalkat et eh, dafay yóbbu lépp loo xam ne noonu ci sunuy waxin dañ koo tudde suura rek day dugg lool day dugg ci loolu wala dafa am lu taxoon muy wax wala atte boobu dafa amoon illa bu tax mu wax ko atte bi am na illa bu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko illa bi xadiis yi ci seen jëmmi bopp leeral nañ ko benn bi mooy jéema nuroo léegi yàlla ci lim nu bind benn bi mooy jéema nuroo léegi borom bi tabaraka wa taala moo tax ci xadisu Aïcha radiallahu taala anha yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ne ashaddu naasi azaban yowma alqiyama alladina yudaahuuna bi xalqillah ñi gën a tar mbugal ëllëg mooy ñii nuróoleeg bindub yàlla kon nataal bi nga xam ne nit ka lam ci jublu mooy nuróoleeg bindub sunu borom tabaraka wa taala waxaat ne inna ashadda annaasi azaban yowma alqiyama inna ashadda annaasi azaban yowma alqiyama alladina yushabbihuuna bi xalqillah kon foofu tudd na illatul xukm muy sabab bi tax mu génn àtte boobu mooy ñooñu dañuy toppandoo yàlla ci lim def boroom xam-xam yi ñi gën a xóot ci wàllu gëstu boobu ñu ne ndax photographe bi yor appareil ñëw photo doomu aadama mu feeñ ci ndax kooku day toppandoo yàlla wala image bi génn ci boppam mooy la yàlla bind ci boppam lu ngeen wax yéen ndax day toppandoo wala loolu mooy li yàlla bind misaal beneen jël nga sab leetar bind ko ci sa lo saw kayit ba àggal yóbbu ko ci benn machine ñu photocopier ko ndax machine bi walla boroom machine bi day roy sa mbind wala sa mbind la génne sa mbind la génne kon photographe bi këm génne moo ki image su bi génne ak boroom vidéo bi bi kim génne kooku ki yàlla bind ci boppama waaye nag ki jël xalimaam nag ne damay defee ne diw sàngam walla damay yat loo xam ne boo ko gisee moo xam da nga naan diwoo wala kenn xamut ku mu doon kooka xadis bi ci kawam la jëm waaye ki génne photo boobu déedéet kooku jëmul ci kawam lu dul nag lu dul nag beneen illa bi ci des dafa ñëw bokk si ci parce que illa bu njëkk bi wax naa la ne mooy jéem a nuróole la yàlla bind beneen bi ci des nag mooy fonk ko fonkeelu jaamu kooka nag su ci duggee photographe beeg yépp dañuy dugg si ki jël photom teg ko balaa xëy raay def ci jëm door a dem defe ne da koy barke kooku muy photographe muy leneen kooku de xalaam ci moom du dagan moo tax lenn ci boroom xam yi xaraamal gi ñu loolu mën nañ koo delloo ci ne dañ cee jublu pour sakk bunt bi ndax jàpp ne kat suñ bunt boobu rek ne ku bëgg a photo photographe mën nga koo def ay nit mën nañ koo def fekk lañ ci jublu ñoom mooy jaamu kat su boobaa du dagan ñu ne kon dañ koy tere moo tax li ëpp solo ci bunt boobu mooy tawassub mooy xool mbir mi ci boppam ak détaillé ko atte ko atte boo xam ne bu leer la moo di photo bi su fekkee ne nit ki daf koo aajowoo ci loo xam ne lu daggan la su boobaa day dagan day photo ndax dafa soxla carte d'identité kooku dagan na ndax toppandoowut yàlla ci lam bind tey jaamu ko taxul mu di ko mu di ko fotow daa bëgg passeport ndax dafa bëgg a aji wala daa bëgg a tukki tukki bu dagan su boobaa photo ba dagan kii nag daa photo photo bi wala daf koo jënd parce que daf koo bëgg a takk ci dënnam di ci barkeelu wala da koo bëgg a wekk ci néeg ba balaa xëy fenn barkeelu ci su boobaa du dagan ci moom mu des nag photo bi nekk ci diggante yooyu nga xam ne aajo taxul waaye jaamu koy taxul waaye am na yeneen yu nekk ci diggante bi mooy def ko ci album bi rek ku ñëw xool ñu ne ah dëkk sàngam la woon ñu ne bii day saint la woon bii nangam li ñuy wax souvenir maanaam loolu nag maam damaa jàpp ne ku àttewul àtteb tere ko it dañuy wax ne jullit bi am itte jot amu ko bi am itte bëgg a dolli ko xam-xam bëgg a jaamu yàlla bëgg a farlu ci wàllu diineem jotu ay mbokki jullitam ñëw seet si ko ñu toog seen waxtu yépp ñu jeexal ko ci ubbi ab album di xool photo ba doonoon Ndar ba doonoon Louga wala ba doonoon feneen googu jot amuñu ko bala ñoo def loolu génne ab téere xool xadis bali la muy wax wala kaset bali ñu doon déglu lu muy wax seen waxtu ci loolu lañ koy jeexal wallahu taala alam beneen misaal mooy lenn ci boroomi xam-xam fuqahaaw sax yoo xam ne xooluñu maqaasidu sharia maanaam jubluwaayu sharia ci yenn àtte yi yóbbee na leen ñuy tere yoo xam ne yu dagan la bokk na ci tere xutba tere xutba ci lu dul kàllaam ak arab wala fas ab sëy ci lu dul kàllaam ak arab am na ci fuqaaw ñoo xam ne dañ ne xutba arab képp la mën a doon takk ab sëy ci arab dong la mën a doon maanaam faaw arab lañ koy làkk sëy ba ngay takk loolu la chaque ne ku xool maqaasidu sharia la sharia jublu ci àtte yi muy def da xam ne loolu du noonu sharia xutba lam ci jublu muy xutba ajjuma wala beneen wala jàngale sax jot li nit ñi ñu xam li ngay wax moo ko tax a jub discours bu sharia la boo xam ne sharia moo ko teg imaam war ci jàkkaarloog askan wi ajjuma ju mu waxal leen loo xam ne lu leen amal njariñ la ñu yóbbaale ko loolu moo tax ñu digal leen ñu déglu ba suñ waxee sax seen ak julli day manqué wala mu yàqu xam nga ne kuy déglu da ngay déglu loo xam déglu bu mel noonu kenn sañ ta wax boo waxee sax bu nit doon wax sax nga ne ko noppil yow boo tu sa jul sa ajuma mën na caa yàqoo kon kooku am na lu am am importance lu muy déglu su fekkee loolu yow da nga ne kooku mën naa ñëw di làkk leneen loo xam ne ña koy déglu xamuñu ko kooku xamoo maqaasidu sharia xamoo sharia lan la jublu dëgg dëgg dëgg nag ci àtte yi nga xam ne moom lay joxe wala ay nit ñëw toog ñu dañuy fas ab sëy ñi woo shuhud yi muy témoin yu bari yi ñu ne mbooloo mépp nañ ko yëgle ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne sëy bokk na ci ci yim ci gën a soññee mooy nañ ko yëgle yëgle bu yaatu lu tax pour ñi koy fekke bari pour yëg ko ba bu ëllëgee buñ seenoon waajoo ji di dox ànd ak ndaw soosu ñu xam ne jabaram la àndal àndut du nitu caaxaan waaye soxnaam la àndal kon ñen nañ ko tasaare bu baax yëgle ko nga woo ay nit bañ daje nga ne dañuy témoin amaana kenn ku dégg arab nekku ca nga ne li ñuy fekke lépp dañ koy làkk ci arab ba mu jeex kon suñ fa jógee li ñuy témoin dañuy xam ne rek mbooloo mi dajewul waaye kan lañ doon maye xamuñu ku mu doon kuñ ko may xamuñu ko parce que ci arab lañ ko doon làkk te xamuñu ko loolu ku xam maqaasidu sharia ak sharia li mu jublu ay objectif am ci indi diine ku ko xam xóot ca da nga xam ne boobu atte atte njuumte la sababu ñeenteel bi moo di alxuluwu fi isticmaali al aqli wa mujaawazati al xadd fi tawil topp nag xel ba mu jéggi dayo kooku ci sabab yi te dégg na ci la bokk topp xel nag ba àgg ci lenn lu nekk da koy interpréter doo ko firee na ko yonent bi jubloo kooku moom la chaque ne day yóbbe nit ki ay xadis mën a wér mu soppi ko wala mu delloo ko sax bañ koo jëfe te fekk lan la topp fekk xelam la topp kon dëgg la euh, firi lu mu mën a doon firi ko doonut loo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo jiital mu doon loo xam ne moom la nit ki topp su fekkoon ne nit ki am xelam lay jiital di wëlbati texte yi pour ñu fekk ci xelam kon du woon jar texte yi sax di ñëw fa dañuy wax kenn ku ne toppal som xel rek mu dem waaye texte yi ñoo jiitu doon imaam xel yi ñëw topp ci seen topp su ko defee xel lay doon liggéeyam moom mooy lu mel ni lii ma doon wax léegi mooy jéem a góorgóorlu ba dégg texte yi jéem a xam siyaax biñ ko doon waxee jéem a xam sabab yi taxoon ñu wax ko jéem a xam nooy boolee taxi yi ci benn bunt ngir man koo comprendre loolu moo tax xelum doomu aadama jóg yonente bi alayhi salatu wasalaam jàppale leen ci bu baax a baax ndax xadis dafa ñëw di détaillé di leeral li nga xam ne lépp alquran dafa ñëw gàttal ko loolu buñ ci doon joxe misaal boo dikkee ci sifaat sunu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam mi koy tudd ci alquran ay nit dañoo jëfandikoo seen xer interpréter melokaani sunu borom tabaraka wa yooyu maanaam borom bi tabaraka wa taala yonent bi nee guddi gu nekk yàlla dafay wàcc ba ci asamaan si gën a jege nit ñi di wax kan moomay ñaan ma may ko kan moomay jéggalu ma jéggal ko ba xadis ba jeex ñooñu ne jëfandikoo seeni xel ñu ne yàlla kat bu doon wàcc kon day jóge fa mu nekk ndax luy wàcc day jóge fa mu nekk dem feneen te yàlla daa war a nekk fépp kon xel a xelum doomu aadama ñu daal di weddi boobu xadis wala ñu interpréter ko interprétation bu ñaaw sax ñu ne lay wàcc kay mooy malaaka yi waaye yàlla wàccu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg arab xam li muy wax ne yanzilu rabbuna sunu borom dana wàcc nga ne malaaka moo wàcc su fekkoon ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw texte yu léje noonu mu bàyyi ko xeer wi maanaam malaaka wàcc mu bëgg leen ko wax mu ne leen yàllaa wàcc ba noppi bàyyi leen noonu dem firiwu ko fenn saxaaba yi laajuñu ko ko ñi bàyyi ko noonu kon mën nañoo wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral giñ ko yónni woon ngir mu def ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim leeral googu nga xam ne moom la ko yàlla digaloon kon day mel ne defu ko kon te yonente bi moo gën a laa biir ñépp moo dàq jot li ñëpp moo gën a dégg ñëpp kàllaama gi mu doon wax mi kàllaama ak arab kon bu ne yan zilu robb na kon suñu borom mooy wàcc mu des nag ñiy jëfandikoo seeni xel bëgg a xam nan la yàllay wàcce loolu mënuñu koo xam ndax bala ngaa xam ay melokaan nan lay demee ci jëmm jum mën a doon da ngay xam jëmm jooja nu mu demee maanaam jëmm ji nga xamul moom ci boppam nu mu demee mënoo xam ay melokaanam nu muy demee li ngay gëm kay mooy wàcc moom am na waaye nag nan la foofu nangul ne xaw ma waaye nag dogul ne dogul ne wàcc googi bokk ak wàcc gi mbindeef di wàcc moom ndax borom bi tabaraka wa taala nuróole wut ak mbindeef dara borom bi tabaraka wa taala saxal na ci alquran ne dafa am loxo yonente bi alayhi salaatu wasalaam saxal loolu yedd nga xam ne loxo lan ko mën a firee nun ñu ñëw ne ah kon bu nu waxee ne dafa am loxo dañ koy nuróoleeg mbindeef yi ndax mbindeef yi dañoo am ay loxo ñu ne nu ñuy def kon ñu ne nañ ko firee leneen luñ koy firee ñu ne kàttan ñu ne nañ ko firee kàttan kon kooku interprétation la boo xam ne moom itam liñ waxoon fee rek lañ fiy waxaat moo di su fekkoon ne kàttan la borom bi mën naa wax ne kàttan yonent bi mën naa wax ne kàttan waaye loxo la wax ba tey ñoom li leen dal mooy dañoo daw ak daay tàbbi ci jëmm li wala fi wax tàkk-tàkk laa ngi ñu daw ba tàbbi ci leneen tàkk-tàkk loxo ne moo gën a tar biñ ne suñ saxalee loxo dañuy wax ne daa nuroog mbindeef kon nan wax kàttan waaw ndax mbindeef daa amul kàttan pourtant am na kàttan kon defuñu dara maanaam li ñu wax tekkiwul dara kon kay foofu solution bi mooy lan moo di bépp melokaan boo xam ne borom bi tabaraka wa taala melale na ko boppam ci alquran walla ci làmmiñu yonentam alayhi salaatu wasalaam melokaan boobee nañ ko jox nam ko firee nañ ko firee noonu waaye nañ ñu xam ne bokkalewu ko ak mbindeef mbindeef miskiin la mu doyadi mu am ay melokaanam yu doyadi yu méngoo ak moom am fuñ tàmbale am ñu yem borom bi tabaraka wa doon ki bind mbindeef yi doon ku am kàttan yor ay melokaanam yoo xam ne dafa méngoo ak kàttanam googee kon bu nee am na loxo dañuy xam ne loxoom bokkul ak loxo doomu aadama kon li ñuy tudd tashbih wala tajsim wala nuróole nit teg yàlla da nga ciy daal di mucc bu nee yàlla day dégg nga xam ne ab déggam bokkul ak déggu doomu aadama bu nee day gis nga xam ne ab gisam bokkul la gisu doomu aadama waaye nag boo nee du saxal gis bi wala duma ma saxal dégg bi ndax doomu aadama day gis wala day dégg kon nga jóom ci buntu al asma wa sifaat moo tax damay wax ne laay ji nga xam ne su ko nit ñi déggee dañuy fer ijji ci buntub al asma wa sifaat mooy borom bi tabaraka wa taala fi muy waxee ne laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir laysa ka mislihi shay'un mooy amut kenn ku mel ne yàlla wala ku nuróog moom ba noppi ne wa huwa samiul basir te moom mooy kay dégg mooy kay gis foofu la nga fay jële mooy pourtant doomu aadama day dégg day gis de waaye nag laysa ka mislihi shay'un dëgg la doomu aadama ngi dégg mi ngi gis waaye ab gisam akub déggam melul ne déggub sunu borom tabaraka wa taala aaya boobu boo ko déggee da ngay fer ci buntu al asma wa sifaat mooy lépp lu borom bi saxalal boppam nangu ko ko saxalal waaye nag bul ne nuróole naa ngi mbindeef dara bunt boobu nag ñu bare bari juum nañ ci fekk li leen ko indil mooy jëfandikoo xel ak jéggi dayoo ba yan xel loo xam ne moom loola du wàllam beneen bi <coughs> muy beneen sabab bi te mooy juróomeel bi mooy aljahlu bima taulu ilayhi al atte yi ci jëmmi boppam atte sharia yi wala xadis bi bi mu ñëwee joxe benn atte atte booba la cay tegu la muy jur résultat ba réere ko léeg-léeg nit mu sabab nit ki ba a dégg xadis bi ci boppam moo tax ibnul qayim day wax ne borom bi tabaraka wa taala su fekkee xaraamal na dara lu mu mën a doon day xaraamal yi nga xam ne yooya dañ la koy yóbbe maanaam li nga xam ne boo ci jaaree tàbbi ca lu xaraam la loolu daf koy xaraamalaale kon jëmmi loo loolu mu xaraamal nga xam ne mooy yoon wi ngay jaar di ca dem ñu koy tudde zaria loolu ci jëmmi boppam nekkut lu xaraam li zaatihi maanaam du moom ci boppam lañ xaraamal waaye dañ koo araamal parce que la boo xam ne daf laa mën a yóbbu ci loo xam ne lu xaraam la loolu lu ma tax xam la maanaam xàmmee li nga xam ne dañ koo araamal moom ci boppam ak xàmmee li nga xam ne dañ koo araamal parce que dalaa mën a yóbbelu xaraam mu joxe ci misaal mu ne borom bi tabaraka wa taala dafa digal nit ki mu damm ab gisam muy góor muy jigéen ci xool jigéen joo xam dafa xaraam mu xool ko mu ne te moo ne day gis de xool ci boppam nee lu baax la ndax doomu aadama da ci xool yu rafet yi di waaru ci bindee fi suñu borom tabaraka wa taala kon xool ci boppam du luñ xaraamal waaye boo jitee ñu araamal ko foofu dañ koo xaraamal saddan li zaria parce que xool bi mën naa jur leneen loola jur leneen ba àgg ci jur lañ doon xaraamal muy njaaloo ko kon loolu moo waral moo waral tere gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne yéefar yi doon xeex ak moom da doon xeex ak ñoom ngir tasaare lislaam am ay naafeq yu nekk ci biir Madina jaxasoo ci biir jullit yi suñuy julli ñuy julli ñuy woor ñu ne ñu ngay woor ñoom itam yonent bi sallallahu alayhi wa xam leen ba xam seeni tur ba wax ko Xudayfatu bnul Yamaan ki nga xam ne moo doon denc fekkere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ndax duñ leen rey Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul bokk na ci ñi gënoon a siiw nga xam ne moom ñëpp ko xam sax foofu bi amee ku ko tàggu ne ko da ko bëgg a rey dana ko déedéet parce que bëgguma nit ñi dégg ne Muhammad day rey ay àndandoom day rey ay àndandoom kon atte boobu dafa am jubluwaay dafa am jubluwaay boo xam ne bu mat a bàyyi xel la mooy atte bi da nga koy joxe ba àggal am leneen lu ciy toftaloo loo xam ne bu dikkee ak yàq lay doon nga arrêté atte boobu donte lu jaadu la rey naa béq baaxut ok baax na waaye buñ ko reyee lu ciy tegu parce que ñay xool ci bitti moom lañ xam mooy ku dikk tuub ànd ak yonente bi ne ko yow laa àndal kooku moom mooy saxaaba yi loolu lañ xamoon ñoom suñ demee ba mu yàgg dégg ñu ne rey nañ diw sàngam kat ci ñam àndaloon la bokk ñu ne ah kooku de kon daa tàmbali rey ñam àndaloon loolu lu muy jur mooy ñi doon bëgg a dugg si ñoom ñëpp dañuy daw dem dañ naan kat kooku boo demee ànd ak moom it du la tax a mucc amaana sax mën na laa jekku jàpp la fa rey la kon kon yonente bi alayhi salatu wasalaam stratégie boobu la jël kon atteb sharia bu mu mën a doon bu nekk xoolal su ñëwee la cay tegu ndax léeg-léeg dara doon lu baax dana doon lu baax waaye boo ko diglee fii suñ ko defee mu jur lu bon su boobaa bul lu baax léeg-léeg dara doon lu bon waaye boo ko teree fii lay ñëw a ko yées kon bul tere loola noonu la la sharia di jàngale foofu moo tax ibnu taymiya rahimahullah ci jamono yi ñi ñuy tudde ak tatar nga xam ne noon yu mag lañ yu ñëwoon attaqué monde islamique bi yàq lu bare bare bari rey jullit yi tuur seen i deret sotti seeni i orma lakk seen i téere sànni ko ci dex gi doon ñoo xam ne li ñu ci kàttan kenn xamul nu mu ba ñëpp ragal leen ibnu taymiya ab école am ak ñam àndaloon ñu doon jihaad xeex ak ñooñu benn bis dañ leen a romb waa tatar yooyu ñu toog ci seen benn taabal di naan sàngara kenn ci ndongo yi ànd ak ibnu taymiya ne ko ah waaw ndax duñ leen tere sàngara suñuy naan mu ne ko déedéet bu leen tere parce que ñii suñ màndee dañuy nelaw jullit yi nopp lu ci seenu ay suñ àndeek seen sago roy doomu aadama yi fab seeni alal xotti seeni or kon ñooñu seen naan sàngara moo gën kon léeg-léeg mbir mi dana doon lu bon waaye sharia da lay wax bul ko tere parce que boo ko teree lay dikk a ko yées léeg-léeg mu doon lu baax warees koo mën a digle waaye da wax ne boo ko diglee la cay tegu lu yées lay doon kon bu ko bul ko digle kon kooku ab bunt la bu am solo bu mat a bàyyi xel beneen bi ci des muy asababu saadis mooy isaatu tey taysir kenn ku ne xam ne di diine lislaam dafa ñëw ngir yombal dikkul pour jafeel mboolem li ñëw ci ay texte ci alquran ak sunna loo xam ne dafay digle daawa dafay digle itam ñu yombal teg ko ci yoon bañ koo diisalal nit ñi ba duñ ko attan yassiru wala tuassiru wala yassira wala tuassira bi yonente bi alayhi salatu wasalaam yónnee Muaz ak Abu Musa al Ashari yaman loolu la leen wax yombal leen waaye bu leen jafeel buntub yombal boobu nag dafa am ñoo xam ne dañ ko yaatal a nag ba faf ba wut wut soppi sharia daf koy mën a juddoo maa ngi jàng ci téereb kenn ci boroom xam-xam yi dund ci suñ jamono génn na àdduna sax yàlla na yàlla yërëm mu cay wax ne uusi duaata alladina yadhabuna ila korea an la yuftu bi taxrimi laxmi alkilaab fa inna alqawma yakuluunaha mu ne maa ngi dénk ñii tukki fu mel ne Corée te doon ay wootekati lislaam suñ demee bu ñu xaraamal yàpp xaj ndax foofa ñoom dañ koy lekk bu baax a baax boobu yombal mooy ban façon yombal kon booy dem dëkk boo xam ne dañuy naan sàngara itam kon bul ko tere ndax xawm alqawmu yashrabuna maanaam yombal gi buñ ko yaatalee nag ba mu ëpp day mujj attey sharia yoo xam ne yu ferme la yoo xam ne nii lañ ko war a tëralee da ngay dem ba ne woote ci lislaam moom laay jiital ba tax ma bàyyi nit ñi ñu mel nañ mel lislaam lu mel noonu tax koo jóg lislaam dafa dikk pour segg pas-pas yi pas-pas bu yàqu mu ne dafa yàqu segg munkaraat yi muy ku nekk ci lu bon wala lu xaraam loolu dañ la cay génne teg la ci siraatul mustaqim ba noppi nag won la yomb gi nga xam ne diine ji moom la moom la yomb sabab juróom-ñaareel bi te moom laay mujjee mooy isaatu tatbiqi fiqhi al dafa am lu tudd fiqhul awlawiyaat muy priorité yi nga xam ne lislaam moom la am lañ war a jiital ak lañ ca war a teg ak lañ war a def lañ dëgg la jullit bi moom li feeg wax waxagut ashhadu an la ilaha illa allah yeneen ya ca des yépp moom di ca wax ak moom wala ngay discuter ak moom ca yooya daanaka lu doyadi lay doon bu duggee ci l'islam ba àgg nag l'islam bépp da koy daal di war su boobaa lenn nekk mën nañ ko leeral ci moom kon priorité ci l'islam noonu la tëddee am na yum jiital am yum ca waaye nag bunt boobu itam dafa am ñoo xam ne dañ koo yaatal ba sànq lu bari ci sunna yi ba àgg ci sànq sax yu bari ci yi nga xam ne yu war la ci kaw ne dafa am ay qadaaya muy qadaaya al umma al kubra muy e, li nga xam ne xeet wi mooy yi leen war a gën a itteel yi leen war a gën a itteel rawatina seen digganteeg seen i noon ak seen digganteeg jullit yi yi ñuy dund ci plan international mbir yooyu day yóbbu seenum xel ba leneen loo tudd ci biir sharia ñu jàppe ko lu tuuti leneen loo tudd ci sharia ñu jàppe ko lu tuuti wane ne nangam moo war a jiitu nga door a wax ci nangam am na ñoo xam ne dangay ñëw ci ñoom sax gis ñu sàggan ci loo xam ne sunna la léeg-léeg sax lu war lay doon wala def sax loo xam ne luñ tere la nga waxtaan càng moom lu mu lay tontu mooy léegi xeet wi noonu yaa ngi ko wër fenn fu nekk nga ñëw di wax ak man ci masala sàngam masala bu ndaw bi séddale sharia ay masala yu mag ak masala yu mag te xam ne lépp lu sax ci diine rek tuuteetul al imam malik waaja dafa ñëw ne ko damaa amoon masala bu ndaw ci diine mu ne ko xanaa bokkul ci diine mu ne ko ok mu ne ko diine lu ndaw newu ci diine amul lu ndaw kon ay masala yu ndaw amul benn waay ci waa Palestine ci ñi nga xam ne nii la ñuy waxee bokk na ci wax yum wax naan nun day suñuy boromi xam-xam am na ci ñoo xam ne bal yi day tàkk bal yi day tàkk jóge ca noon ya ñi dinu jàngal aadaabu nawm nee na ñi dinu jàngal teggi ni nelaw mel na yooyu dafa am contradiction est-ce que doo nelaw bal yaa ngi tàkk doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg il faut nga nelaw comme que da ngay nelaw nag am na teggin yoo xam ne aajo woo nga xam ko faw ñu xàmmee li nga xam ne moom la ñuy tudde priorité ne dafa war a nekk des ko war a jox itte ji ñu ko war a jox waaye loolu wër sa nekk ne ginnaaw nangam lan war a itte woon nañ bàyyi yu ndaw yëpp nit ki day ñëw di la waxal ci noonu yëpp xeex beeg réalité beeg yi xew yëpp boo ko laajee nooy jàppeeg nooy jullee lan mooy farati jàpp lan mooy farati julli mu gàtt du ko xam te moom en tout cas loolu lañ koy laaj boo ëllëgee de loolu mooy li ëpp solo ci moom mooy lan la war a fas bu faatoo liñ koy laaj lu doonoon sa diine lan moo doon yonent bi nga doon roy sa roy googi fan la yemoon waaye bu ëllëgee duñ ko laaj bal ya doon tàkk fële nu mu doon tàkkee bi mel noonu kooku nekkul li nga xam ne moo ëpp solo ci moom en tant que doomu aadama joo xam ne day faatu dugg ci bàmmeelam kon yi nga xam ne itteel na xeet wi jullit yi faaw ñu di ko ittewoo ndax faaw mu ittewoo ittey xeetu lislaam wépp waaye nag bu tax mu ne loolu moo am priorité ba yenn yi ci des mu tudde ko yu ndaw ba amatul solo kooku faw ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko xel am na euh, benn waay boo xam ne dafa doon yedd ay ndongay xam-xam yoo xam ne da leen a fekkoon ñiy gëstu ci buntub intérêt yi am ci riba ñu ne ndax intérêt riba la wala du riba ñuy gëstu ci boobu mu fekk leen lu ngeen di wax ñu wax ko li ñuy wax mu ne ko yéen américains yi dem nañ ci jaww ji ñu ngi naaw ña nga ca weer wi ngeen di gëstu bi ndax intérêt dagan nag dagan xalaat xalaatiin yooyu ci biir xeet bi bokk na ci yi nga xam ne yii ñaawal nit ñi dégg sunna ak mën koo dund ci la bokk yi xew yépp lu mat a jox itte jox ko itte waaye nag ñu xam ne priorité du caagi ni ko am mooy toog nga toog rek di xalaat nangam nangam daa waroon a am jullit yi nangam lañu waroon a def sun deful nangam dañu dellu gannaaw te yow loo def tàmbale woo ci sa bopp ji ma defar sa bopp bu dee jikko yu baax jikko yi baaxagul bu fekkee ne pas-pas bu baax la kooko ko ñuy wax bu dee xam-xamu kooku taxul ñuy wax moo tax dangay gis ñi nga xam ne loolu daf leen a wàll ba sori ci ñoom mën nañoo toog fii di déglu ay xabaar ak ay débat yoo xam ne ci débat politique ak yu yu kenn xamul yu mu doon la ñetti waxtu mën nañ koo toog di ko kii duñ ko duñ duñ doyal duñ doyal waaye buñ toogoon di déglu benn bind boo xam ne bindu xam-xam la nga xam ne da nga cee war a jëlee masala yoo xam ne dangay dem dund ko ci sa kër ñetti baat ñeenti baat nga gis ñuy joyox di nelaw di nelaw parce que seytaane foofa la nekk foofa la leen jekkoo kon faw euh, jullit yi nag dellusiwaat ji ma góor góorgóorluwaat jàngaat sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, jàngin woo xam ne jàngin wu xóot la bind bi nag dama ciy jublu it mbokk yi nga xam ne ñoom insha allah ñoom ñoo fas yéene jël jataay bi di jàng ndax xam naa ne mbokk yi jazakumullahu xayran ñi ngi tàmbali programme boo xam ne programme bu am solo la mooy fas yéene jël ay boroomi xam-xam ñu continuer jàng ak kon ci tàmbali bi Eh, dañoo jublu benn bind boo xam ne dafa muy jariñ jariñ leen waaye jariñ itam <clears throat> jàngalekat yi nga xam ne ñoo nar jël chaise bi di toog ak seen i moroom wala seen mbokk mbokki jullit ngir baaxe leen ci wàllu diine ji ngir ñu mën a góorgóorlu bu baax a baax ci bunti diine yi fexe ba li ñuy jot li mu doon loo xam ne lu leer lay doon loo xam ne doomu aadama ji bu fa génnee daf koy daal di mën a dund yàlla na borom bi tabaraka wa jàpp jàppandal loolu ñu del si waat kon di mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci point 1 ak euh, jumaa ju am solo ji euh, yitte ji nga xam ne def nañ ko ba amal euh, jataay bu am solo bi ak déglu gu rafet gi di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo encadré liggéey bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal leen tawfiq te defal ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain